la xam ni mooy alxalifatul aam li taifatil muridiya seex muntaqa xafisaullah wara ci ndokkeel alxasratu si ahmadul bamba sukuran wa inasan ci ndokkeel al alamul islamiya ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan di wax ni dugg nañ ci weer woo xam ni mooy weeru safar ni ma yàgg waxe miraaran ni borom safar moo dox suñu digganteeg safara ñu tëbbe ko ci waxi cheikh Mouhamed Lamine Diop Addaghani radiallahu taala anhu mu ni sëñ Tuubaa nee na ñi aju ci man bu ñu ajul woon ci man yowmal xiyaam donte benn seconde danañu ko jaar safara la qadrallah wala saman kon borom safar moo dox suñu digganteeg safara mu mel ni mawdu bi ñu tànn ngir bëgg koo waxtaane muy faidatu siyaara anbiyaa illah wal awliya wal ulama saalihin bu la nga ni ahimat bu la neexee nga ni ahamiyatu siyaara anbiyaa illah wal awliya wal ulama saalihin njariñal jóg sol saw dàll waaxu distance bu sori ngir siyaare ji nitu yàlla moo xam yonant la moo xam wàlliw la moo xam boroom xam-xam bu jëfe xam-xamam la lu ci nekk dafa làmboo njariñ yu rëy yu màgg yu yaatu yoo xam ne taxoon na ulamaaw tasawuf ak nitu yàlla yi waxtu woo xamante ni xam nañ nitu yàlla moo xam day dund moo xam dafa faatu dootuñu tëdd nelaw mbaa ñu lekk ba suur mbaa ñu naan ba màndi ndare dañoo rencontré nit koo ki bu fekkee mi ngi dund ci kaw suuf wala ñu dem siyaare ji ko bu fekkee dafa nekk ci raw da tuum loolu nag moom lañ bëgg a waxtaane ñu bëgg koo tàmbalee ci sunu sang bu tedd bii di Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu taala xam ngeen ni bi mu feeñee fii ci senegal mbooleem nit yàlla yi mu fi déggoon ñuy dund ci kaw suuf fexe na ba rencontré leen bu fekkente ni génn nañ àddina sol naw dàllam waax ba ci seen rawdatu mu siyaare leen ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala mu nekkee ci loolu diir bu yàgg yonent bi nga xam ne alayhi salaatu salaam mooy sayyidul awwalin wal axirin mu bëgg ko mbëggeel goo xam ne mënatu la tëdd nelaw mënatu la lekk suur mënatu la naan mandi jamono bu nekk mu di ko xalaat di def ay effort ngir bëgg siyaare ji yonant boobu alayhi salaatu wasalaam waaye mu am gàllankooru yaram ba mënta dem siyaare ji ko ba daana sax di yedd yaram wi ci lan moo tax mënuloo def moyens yi nga am yëpp ba sa ba ci sa pour siyaare ji yonant bi sallallahu alayhi wa sallam daana ci yedd jëmmi boppam ji radiallahu taala anhu ñu ne ko waaw li tax mënatulaa tëdd nelaw doo lekk suur doo naan mandi ngir bëgg siyaare ji gën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam lu ko sabab mu ni suur man tuhibbu wa in satat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awxaaru laa yamnaxanaka buhdun min siyaaratihi inna al muhibba liman yaxwa sawaaru mu ni waaw axakay ah, ndax as cam dafa war a jóg def effort ba dernière énergie ngir siyaare ji ku mu sob ngir jëmmi yàlla muy ndax aji sob war na jóg di siyaare ji ki mu sob dont ay montagne ak i pelen moo dox seen diggante moo xam ni kon moom am na gàllankooru yaram ba tax na mënta siyaara ji yonant bi alayhi salaatu wasalaam mu dal di nag yabal ruuxam ak xolam ñuy siyaara yonant bi ci jamono bu nekk mu ni suñ borom tabaraka waccal taala wajal xalbi wa ruuxi saairayni saairayni la an kulli waxtin wa in maa ngi lay ñaan yow suñ borom man sëñ Tuubaa yabal sama ruu na nga may kattan sama ruu nanga ma defal sama ruu muy siyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa su nekk heure bu nekk minute bu ne seconde bu ne na ma defal sama xol muy siyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bu nekk seconde bu nekk minute bu nekk waj al xal bi wa ruuxi saa irayni la kulla waxtin waayin noonu nga xam ni noonu la ñaane yàlla suñ borom di yabal ruuxam ak xolam muy siyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ni yonent boobu alayhi salaatu salaam sol saw dàll waaxu ba fekk fu mu tëdd nga siyaare ko day far bàkkaar fi duniya wal axira waxuma la sax yonentu sallallahu alayhi wa sallam waaye béréb bi mu tëdd rek waaxu ba teg fa sa tànk day far bàkkaar daañu ko waxtaane ci kanam incha allah bu nu seetee yonentu yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam bi mu amee suñu borom randiw tabaraka wa taala suñ borom xamal ko junni science ko suñ borom xamale junni science Moussa alayhi salaam xam-xam bi ko yàlla xamal bari mu ñu waaw suñ borom ndax amati na ku ma gën a xam ci kaw suuf suñ borom ne ko ah kay naam sigil xool Seydina Moussa bi mu siggee sànni bëtam seen mel ni picc mu sëpp aw sàllam ci géej gi dal di siggi dal di tàqamtiku li nga xam ne moo taq ci aw sàllam dal di naaw suñ borom ni Muusa alayhi salaatu wasalaam li ma la xamal ci xam-xam mi ngi mel ni loolu picc mi jël ci géej gi lafa des mooy li fi des te xamaluma la ko ci xeetu xam-xam mu ni ko ah, ndax amati na sa benn jaam bu ma gën a xam ci kaw suuf mu ni ko waawaw am na sama jaam boo xam ni ma nga mañ ma al baxrayni xamal naa ko lu ma la dina Seydina Muusa nag bi ko yàlla waxee loolu tabaaraka wa taala mënatul a tëdd nelaw lu dul ni dafa rencontré jaam boobile mu daal di woo ab taalibeem ni ko kon nag nag ma daal di wutal ab yóbbal ndax man kat dootuma nelaw tànk gisuma jaam boobu taalibeem boobu daal di koy wutal yóbbal ñu jël aw jën lakk ko ñu ko firiiree ànd ñoom ñaar ñuy dox di dox di dox ba yegg ci béréb boobu nga xam ne mooy mañ ma al bahrayni ñu ne dañoo sonn nañu noppalu bu ñu noppaloo ba jóg ñu war a dem ñu fàtte fa jën wa fekk boobu foofu ñu tëddoon am na ndox mu fa nekk mu ñu tuddee maawul ayaat mawlu ayaat li muy tekki mooy ndox muy dund nga xam ne lu mu laal nga dekki même bu la fekkoon nga dee dangay dekki bu la fekkoon nga wér wéré di da ngay wér fi ñu tëddoon ñoom ñaar ndox moomu géej gi duusu na sànni wàgg wi mu dal ci jën wi jën wi daal di dekki ni pandax te ndox ma dem bi ñu jógee ñoom ñaar ñu dellu di dox ba sonn bi ñu sonnee yàlla dogal bi nga xamante ne sonn nañ yàlla dogal Seydina Muusa ni taalibeem bi aywa indil sunu xewal gi ñu xiiwloo ko ndax daal wax dëgg sonn nañ lool ci sunu tukki bi taalib bi ni ko ah man de saytaane moom ma ko fàttaloo fa ñu noo fa ñu toogoon mooy fa ñu tëddoon di noppalu mu ne kon nañu dellu bi ñu dellu see fa ñu fekk Seydina Xadir radiyallahu taala anhu alayhima salaam ci ñi ko jàppe yonant ñenn ñi jàppe ko nit ku baax Seydina Xadir bi nga xam ni Moussa ñëw na fekk ko fa moom ak taalibeem boobu yi sàkku ci xadir ni ko damaa bëgg nga xamal ma ci lilay la xamal ma nekk sab taalibe alquran misaal nañu ko is xaala muusa li fataahu la abrahu ata ablaxul majma al bahrayni aw am di uqba bi nga xam ne loolu am na sayidina muusa ni moom du deñ mukk di yéeg ak a wàcc pelen par pelen montagne par montagne gannuus par gannuus ba keroog muy gis sayidina xadir siyaare ko ngir sàkku ci moom xam-xam boobu qaala lahu Muusaa hal attabi'uka alaa an tu'allimanii mimmaa ullimta rushdaa yow ndax jaamu yàlla bii nga xam ne yow suñu borom xamal na la lu ma xamul damaa bëggoon nga may ma ma nekk sab bi ànd ak yow nga xamal ma ci li la yàlla xamal Seydina Xadir ni ko ah man de jàpp naa ne doo man a ànd ak man attanoo samay maanaam li may def ak fi may jaar attanuloo ko doo ko mën a muñ mu ne ko ah kay baal ma rek ñu ànd ah, ci kaw charte charte bi mooy bul ma laaj dara. te waxuma la ko lépp lu ma def te sa yoon nekku ci bu ci sa yoon nekk feek expliqué wu ma la bul ma laaj mu ne ko d' accord ñu ànd ñoom ñaar bi ñu déparé nis ci géej gi fekk leen ñu daal di yéeg ci genn gaal bi ñu demee ba ci digg géej gi Seydina Xadir jël sawta di yett gaal gi Moussa ni ko yaa ngi def lu bon yow gaal gi seeni borom dañ ñoo yóbbaale rek nga wañu ko bëgg a yàq seen gaal gi fekk gaal googu fukki miskin ñoo ko moomoon juróom ñi dañoo lafañ yeneen juróom yi ci des ñooy liggéey ci gaal gi di dundal juróom yi lafañ yële Seydina Moussa bi mu waxee loolu Seydina Xadir Seydina Xadir ne ko lu ma la waxoon newoon naa lépp lu may def bu ci sa yoon nekk li fii expliqué bul ma laaj mu ne ah, kon nag maa ngi jégalu damaa juum ñu delloo daal dem ba wàcc gaal gi ñu dox tuuti yam ci benn xale lu góor bu toll ci fukki at ak ñett Seydina Xadir di ko yoot ba jot ko ni ko deqi rendi mu daal di daanu xëm ximmiliku ah rey bakkan ci lul bakkan yow Seydina Xadir li ngay def lu mu mu ne ah Moussa lu ma la waxoon mu ne ah bal ma damaa fàtte ñu ànd demaat ba àgg ci benn dëkk ñu ñaan waa dëkk ba ni dañoo bëgg ngeen dalal ñu waa dëkk ba bañ dañoo bëgg ngeen may na ndox ñu naan ñu bañ Seydina Xadir daal ni Seydina Moussa demal nga rooti ndax miir bii di waaja daanu dañ koy defaraat Seydina Moussa di root di indi Seydina Xadir di tabax ba miir ba noppi Seydina Moussa ni Seydina Xadir waaw bu la neexoon nga laaj ak paykat ndax bu ko defee ñu mën koo xiwloo mu ne ko daal fii la ñu teqalikoo maag yow waaye nag lu ci nekk bala ñoo teqalikoo dinaa la wax li sabab ma def ko moo di gaal gële nga gis ma di ko yàq dëkk bii ñuy romb dafa am benn bandi bu fi nekk boo xam ne ku fi jaar ak sa gaal bu gaal gi rafet daf koy nangu te gaal googu ay miskina ko moom di dundal seen yeneen i juróomi morom yoo xam ne dañoo la fañ ma ayibal gaal gi ngir mu bañ koo xemmeem ba di ko jël ci ñoom xaleel boobu nga gis maray ko it boo gisee maray ko moo di xalel bi seeni eh, ay waajuram dañoo nekk nit ñu baax di ay jaamukatu yàlla di nit ñoo xam ne ni ñoom ñu bëgg yàlla lañ waaye nag seen doom ji jenn doom rek lañ am te dafa nekk seen karaw bakkan xam naa ni bu màggee dana leen delloo ci kéefar ma rey ko suñ borom remplacer seen keneen ku gën miir bi nga gis ma yëkkati ko moo di miir bi xaleel yi ko moom seen ñaari waajur jaamikatu yàlla nit ñu baax lañ woon dañoo bàyyi woon seen alal ji nga xam ne seen doom yi ñoo ko war na doon ci suufu miir bi yàlla dogal nag bi nga xamante ni nii bu ñu màggee ñoo ko war a jël te miir baa ngi waaj a daanu te kon bu boobaa du fekk kon xale yi mësër waa dëkk bi daañu jël alal ji may jubbantiwaat miir bi ngir balaa xale yee balaa miir bee daanu màggataat bay daanu mm, xale yi dañu mësër ba jël seen alal jooju ñu gis ni siyaar boobu Moussa jógoon di ko siyaara ji Seydina Xadir alayhima salaam la fa bàyyi ko ci xam-xam li ci bàyyi ko ci xam yàlla li ci bàyyi ko ci mbir moo xam ne mëneesu ko xiyaas kenn kenn kenn mun la ko wax nga xam ne loolu jar na dox diggante penk ak sowu ngir siyaara ji nitu yàlla ngir siyaara ji boroom xam-xam sun borom dañuy fa wajada abdan min ibadina ataynaahu rahmatan min indina walanaahu min ladunaa ilman sama jaam la boo xam ni fa la ko fekk moom Moussa alayhi salaatu wasalaam mu bokk sama jaam ñi nga xam ne man yàlla maa leen jox yërmande waaye maa leen jox xam-xamu ilmu la dunya xam nga Moussa alayhi salaam bi muy ñaan Seydina xadir ni ko damaa bëgg a ànd ak yow nga xamal ma ci xam-xam bi la yàlla xamal ci xeetu njub baatu rusda la Moussa jëfandikoo te xam ngeen yonant alayhi salaatu salaam moom maxsuum la day juddiwaale xam yàlla dëgg dëgg xam yàlla day juddiwaale njub dëgg dëgg njub yonant bëggoon a mooy sax du ko man ndax suñu borom tabaaraka wa taala da ko def mu nekk koo xam ne ni maxsuum la du mooy yàlla mukk bu ko doon bëggit du ko man kon rusd bi Seydina Moussa di sàkku ci Seydina Xadir bokkut ak rusd bi ñu xam ndax rusdu maanaam hidaaya ñaar la hidaayatu rusdu ak hidaayatu tawfiq hidaayatu rusdu mooy ni ab sëriñ di def ab taalibeem rek orienté ko yar ko ba teg ko ci alal kitaabu sunna loolu mooy hidaayatu rusdu loolu moom doomu aadama moo koy defal moroom doomu aadamaam waaye nag hidaayatu tawfiq moom yàlla su suñu borom tabaaraka wa taala moo koy defal ab jaam bu nu xeetee bu ñu seetee xam-xam bi Moussa am mooy xam-xamu sharia nga xam ne mooy indi équilibre équilibre ci addina bi xam-xam boobu moo gën fuuf sax xam-xam bi nga xam ni moom la Seydina Xadir xam waaye nag bële mënta ñàkk ba tax na suñu borom tabaaraka wa taala di ko xamal Moussa jaarale ko ci koo xam ne ñii ne nañ yonant la ñii ne yonant ala kulli ngir siyaara ji nitu yàlla ci la Moussa jëlee xam-xam boobu nga xam ni mën nga ci bind lu fees ñeen fukki gëléem te du tax mu jeex kasaalika bu ñu xoolee njariñal siyaare nitu yàlla siyaare borom xam-xam bu jëfee xam-xamam al ulamaul amiloon daañu gis ni Seydina Aboubacar hadis ba xam ne Anas moo ko nettali Anas ibnu Malik mu ne Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu taala bi mu nekkee alxalifa dafa woo Seydina Omar ni ko Omar dama bëggoon nu ànd siyaare ji ummu ayman ummu ayman nampal na yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ndax damaa gisoon yonant bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko siyaare ji kon nag nañ ko siyaare ji ndax maanaam sunnaal li yonant bi sallallahu alayhi wa sallam doon def Seydina Omar ni ko ayta nañ dem ñu daal di ànd dem siyaare ji ummu ayman bi ñu dikkee ba nuyoog ummu ayman ni ko ah, ñun ndey dañoo ñëw di la siyaare si ngir jëmi yàlla ndax dañoo gisoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana la siyaare si umu ay man daal di simbo ay rangoñam di jooy Seydina Abubakarin Sadiq radiallahu taala ni ko waaw maa tab kii ki yaa umu ay waaye umu ay man li ngay jooy lan la ndax yow génn gi yonent bi sallallahu alayhi wa génn àddina moo tax wala dangaa nanguwul dogalub yàlla umu ay ni ko déedéet maa ab umm an laa kasa wa kasa déedéet man jooyuma ngir li yonent bi sallallahu alayhi wa a génn àddina kenn ab kii annal waxya euh, xaddin mu ni annal waxya euh, xaddin taqata min asamaayi boo gisee ma jooy li tax may jooy moo di wax waxyu bi daan bàyyi ko asamaan di wàcc nan sallallahu alayhi wa di ñu xamal alxalaal wal xaraam wax waxyu boobu nga xam ne dafa dog moom moo tax may jooy waaye jooyu ma rek ngir li yonent sallallahu alayhi wa sallam génn àddina bi mu rek Seydina Abubakar Sëriñ ak Seydina Omar ñoom ñëpp dal di simbo seeni rangoñ ñoom tamit ànd ak moom di jooy ñu gis ni kon siyaare ji nitu yàlla bu la fàttalee yàlla ak yonentam bu fekkente ni al insaanul kaamil la dalay delloo ci yàlla day tooyal sa xol ci yàlla Seydina Omar ak Seydina Bakari Sadiq fi ñu toll ci yàlla waaye terewul ummu ay man fàttali na leen yàlla ba ñoom ñëpp ñu simbo seeni rangoñ di jooy kon importance ji nitu yàlla noonu la mel ka boo demee ci hadisul qudsi hadisul qudsi yonentu sallallahu alayhi wa moo ko wax ci làmmiñam waaye wax suñu borom la tabaraka wa taala riwaaya boo xam ni muslim moo ko soloo jëlee ko ci abi urayra mun yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom daf ni anna rajula saara aqan lahu fi xariyati aw ma xaala alayhi salaatu wasalaam ila axiri addis mu ni dafa am benn waay bu jóg-jóg rek sol ay dàllam wut ab yóbbalam namm tànkam jóge dëkk sangam jëm dëkk sangam di siyaare ji mbokk jullitam mum yaakaar ni am na yàlla taq na yàlla xeeñ na yàlla nee bi nga xamante ni départ na di dem suñ borom yebal mel ni malayika mu ñëw daje ak moom daan ni ko ay na turid waaw foo jëm ni ko ca dëkk bële loo wuti mu ni diw laay siyaare ji ah xanaa dalaa jox raan diw nga bañ koo foose mu ni déedéet dala ameel bor nga di ko fay mu ni déedéet loolu tax a jóg jëm ci moom mu ne xanaa dama ko bëgg ngir jëmmi yàlla rek tabaraka wa taala inni ahbabtuhu fillahi tabaraka wa taala bi mu waxee loolu malaayika mi ni ko ah suñ borom nee na ni nga bëggee waa ji ba mu jaral la jóg sol saw dàll di ko siyaar ji ngir yàlla suñ borom nee na bëgg na la noonu yi ñu gis ne mbëggeelu yàlla ci ab jaam mat moom mahabbatul ilahi ci ab jaamam loolu moom mooy texe gu mat digg digg fa la texe yam suñu borom tabaaraka wa taala ku mu bëgg ni mu waxee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko xul in kuntum tuhibbuuna laa nii yuhbibkumullaa wa yaxfir lakum sunuubakum wallaahu xafuurun rahiim kon daañu gis ni jóg siyaare ji nitu yàlla gis nga liñ ci mën a amee mooy mën naa sabab yàlla bëgg la ba faw mën naa sabab yàlla jéggale ba faw ci beneen riwaaya ba tey ci hadisul qudsi mu ni malaayka mi dafa jóge ci bii dëkk jëm ci bee kii waa ji dafa jóge ci bii dëkk jëm ci bee dëkk malaayka mi daal di dogale ko ne ko ay na turid foo jëm mu ni dëkk sàngam loo fay wuti mu ni damay siyaare ji di ngir yàlla lu tax nga di ko siyaare ji mu ni dama ko dégg ci yàlla ak yonantam rek bëgg ko ngir yàlla di ko siyaare ji ngir yàlla rek suñ borom tabaaraka wa taala malaaka mi dellu si fi moom suñ borom posé question malaaka mi ni ko waa yow sama jàmm boobu noo ko fekkee mu ne ah moom day nee na dëkk sàngam la jëm laaj naa ko loo fay wuti ndax dalaa ameel bor ngay fay mu ni déedéet dalaa jox randi mu ni déedéet lu tax a jóg jim ci moom muy dama ko bëgg ngir yàlla ko yonentam rek di ko siyaare ji ngir yàlla suñu borom ni ko dellul soo demee ne ko jéggal naa ko ba faw jéggal ko muy siyaare ji ba faw ahamatu ahamiyatu siyaara awliyaa ullah wala boog faidatu siyaara njariñam mëni su ko xiyaas yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tasaawaroo taxaaboo di leen ndax ngeen soppante mu moom yonent sallallahu alayhi wa sallam sur xibban tasdaadu xubban siyaare ji nit fekkoo ko fa day dolli cofeel bu sallallahu alayhi wa sallam ne tasaawaru taxaaboo siyaarante leen ndax ngeen soppante daañu gis ci yenn téere yi ñuy wax ni si Ahmadi Tiijaan yi nee na képp ko xam ne nii dangaa jóg di siyaare ji walli woo xam ni ajuwul ci tariixa bi boo dellusee war ngaa yeeslu wax naa miraaran ni loolu jëpp ma ni waxi Cheikh Ahmadi Tijaani la ndax Cheikh Ahmadi Tijaani alquran moo ni innamal mu'minuuna ixwa fa aslimu bayna loo taxoon moom ma di Tijaani mu teeloon a wax ci mbindam ni isa samihtum anni shay'an fasinu bi misaani sharia fa maa wafaquhu fa xusuhu wa maa xaalafu fa tarakuhu mu ni moom Seydina Cheikh Ahmadi Tijaani waxtu woo xamante ni nit indil na leen mbir ni maa ko wax na ngeen ko teg ci balaasi sharia bu fekkente ni dëppoon ak sharia jël leen maa ko wax bu ni wóote na ak sharia bàyyi leen samay wax bu ñuy wax siyaare ci ku bokkul ci tarixa bi ñi ci jublu mooy ñi nga xam ni ñoom mooy nit yàlla yi ca lañ ca wax lañ ci jublu mooy siyaare ci ngir tëbbu siyaare tëbbu di wax ndax siyaare ñaar la siyaare ngir tëbbu ak siyaare ngir pajug aajo maanaam euh, lu la jaaxal daal nga bëgg suñu borom teggil la ko nga dem siyaare ji nitu yàlla mu ñaanal la ci suñu borom teggi ko siyaare ñaar yooyu rek moo koy jur siyaare ngir tëb wala siyaare ngir dindi njaqare ñaari siyaar yooyu ñoo am yonent sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen di siyaarante ndax ngeen soppante muni ni siyaare ji ngit fekkoo ko fa sax day dolli cofeel waaw ndax bu fekkente ni ki nga siyaare xam na lan mooy xaqi dox aw yiw xam na luy xaqi doxu mbokk xam na luy xaqi lislaam saa bu ñëwee ñu ni ko diw sàngam ñëwoon na fi waaye fekk la fi nee na nangam ak nangam la muy jëkk a def mooy ñaanal ko njéggalal yàlla la muy jëkk a def mooy ñaanal ko yiwu yàlla te bu fekkente ni kooku ñuy siyaare bu dee al insaanul kaamil di nitu yàlla bu baax saabu bu ne suñu borom ah diw de yàlla na nga ko jéggal rek suñu borom jéggal ko saa bu borom diw yàlla na nga ko defal nangam suñu barke barkeel làmmiñam ndax suñu borom daf koo may làmmiñu barkeel loolu mooy tax siyaare ji nit fekkoo ko fa te it nag li feeg mu lay gis xelam day aju ci ñëw ga nga fa ñëwoon te fekkoo nga xam ne saa bu ngeen dajee lim lay jëkk a mooy ah yow dégg naa ñëwoon nga fa de fekkoo ma fa dellu ko ñaanalaat aw yiw sa tànki dikk say tànki dellu yàlla na ko yàlla def alxasana wal maxfira ila axiri ila axiri yi kon suur xibban tas daadu jooju yonant wax dee leen siyaarante ndax siyaare ji nit fekko ko fa sax day dolli cofeel kazalika jëlee nañ ci hadis boo xam ni Seydina Abi Urayra moo ko nettali mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee man xaada maridan aw saara xaqan la fi laa naadaahu munaadi bi mamsaaka wa tabawaati min al janna mansilan aw kama xaala mun yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na képp kenn ci yéen ku ni ñokkit jóg dégg mbokkum jullitam mu tawat mu waaxu dem di ko siyaara ji ngir yàlla tabaraka wa taala wa ilaa mu jóg dégg mbokkum jullitam ci mu jóg di ko siyaara ji ngir jëmmi yàlla subhaanahu wa nee na suñu borom dana yebal ab wootekat muy woote ci penkook sow naan xool leen bu sell bu màgg bi xool leen yàlla waajale na ko benn wàccuwaay ca jannatul firdawsi yàlla waajale na ko benn wàccuwaay ca àjjana jëlee nañ ci ku ñuy wax aba ali aba ali anay buur yi nitu yàlla la nee na damaa tëdd bis nee dama nekkoon ci jamonoy njàqare tiis naqar addina dab ma mënumaa tëdd nelaw guddeeg bëccëg ma di ko xalaat nee benn bis ma tëdd gént gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ma yaa aba ali ma ni ko labbayk yaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ni ma sir ila xabri yaxya ibnu yaxya wastaxfirillaha wasal naqdi xaajatak aw kama xaala mu ne yow aba ali bu subaa boo xëyee aba ali mooy nettali mu ni damaa gént gis yonent sallallahu alayhi booba maa ngi ci njàqare ak tiis jamono dab ma nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam ma ci gént ni ma bu subaa boo xëyee nanga dem ci rawdatu ku ñuy wax yaxya ibnu yaxya soo demee nga siyaare ko jéggulu sa borom te ñaan yàlla boo ko defee suñu borom dana faj sa aajo aba ali ne la ma xëy dal di dëggal sama gént waaxu dem ci barab bu yaxya ibnu yaxya nee bi ma demee ma daal di jéggulu yàlla ñaan def tawasul ci war may yaxya ibnu yaxya ci war ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fa saasa rek suñu borom daal di dindi njàqare joojee nga xam ne moom laa amoon fajal ma sama aaju yëpp tabaraka wa taala ku ñuy wax Seydina Awaysul Xarani Seydina xare Xarani ci nit yàlla yi la bokk xam ngeen ni yonent sallallahu alayhi wasallam daana ko junj lu bari ci ay waxam nee ñu daana wax naan dafa mel ni xetuk yàlla moo may xeeñ wet gi féete yaman nii la ajido nafasa rahman min jaanib yaman daana wax Seydina Ali ak Seydina Omar fekk saxaaba yëpp sax la ko daan wax naan leen na ngeen fexe ba bu ngeen gisee uwaysul xare nii na ngeen ko ñaan ñaanloo yàlla ndax moom lu mu ñaan yàlla def ko tabaaraka taala ba nee ñu mujj cité Seydina Omar ak Seydina Ali ni leen yéen ñaar yéen a koy gis bu ngeen ko gisee na ngeen ko ñaan loolu lu mu na ko loo nañ ko yàlla mu ne ah woon Yaman ñëw aj si Màkka te Seydina Omar laaj leen ana Uways ñu ne ko moom ñoo ñun ñoo ànd mu daal di koy woolu def ñaan googu nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam santaanoon ngir mu ñaan lu leen njéggalal yàlla Seydina Uwaysul Xarini nee na mu ne anna awliya allah wal ulama aw saalihin ka suada ahya fi quburihim innama antalaqu mu ni innama antaqalu fi daaril fana ila daaril xaraar aw ila daaril baqa mu ni moom Seydina Uwaysul Xarani mu ni maa ngi leen di xamal ni wàlliwu yàlla yi ak ulama wu saalihin mooy borom xam yi jëfe seen xam-xam ñooñu du ñu faatu ñi ngi ci seen bàmmeel di dund waaye nag nam an taqlu min daaril fana ila daaril xaraar dañoo jóge ci bii appartement dem ci bi appartement rek dañoo toxo appartement bi dem appartement bi waaye faatuwuñu maanaam dañoo jógee daaru dunya dem daarul baqa mooy barsàq nga xam ni wala boog béréb ba nga xam ni boo fa nekkee dund gudul jeex la ba faaw faaw faaw mu ñoom duñu faatu mukk lépp loo xamante ni waaye wax na ko dañ koy dégg man loolu nag alquran moo jëkka wax ni si taxsibanna lasina xutiloo fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbim yarsuqun rikk waay bu leen jàpp ni nit yàlla yi fi nekkoon ba jóge fi dañoo faatu déedéet mu ni ma nga fa ña nga fa seen boroom di dund dund ko dàq gi nga xam ni moom lañ dund dund bi ñu nekkee àddina kon bu leen jàpp ni mukk dañoo faatu ma waxoon ci wenn waxtaan ni si Ahmadou Kabir Mbay radiallahu taala anhu mas na jóge luga ñëw Touba di siyaare si sëñ Touba booba sëñ Touba ngi ci biir raw doom bii raw dotoom bii maam Cheikh mooy nettali mu ni raw bi ma ñëwee ba dugg ci raw dotu bi dugal sama tànkum ndeyjoor daal ni asalaamu aleykum nee na wa aleykumi wa aleykumu salaami sëñ Touba ja jàpp naa ni waa Touba gépp a ngi koy dégg ndax xumb gum xumb nee na ma duggee ci raw bi rek daal ne asalaamualeykum nee na wa aleykumu salaami sëñ Touba jàpp naa ni waa Touba gépp dégg nañ ko ndax xumb gu xumb kon loolu Seydina Uwaysul Xarini wax ni nit yàlla yi bu ñu nekkee barsàqit ñi ngi dund faatu lu wér la loo wax dañ koy dégg lu wér la ni ñuy fajee aajo bi ñuy dund ci kaw suuf bi ñu nekkee àllaaxira la raw ndax lu tax bi ñu nekkee àddina benn bët lañ la daan xoole waaye bi ñu nekkee barsàq nag léegi nga xam ni kumpa dañ na ci ñoom léegi nii milliards yi bët lañ lay xoole moo tax jóg di leen siyaare am njariñ alquran ni wala taxsibanna lazina qutiloo fi sa sabilillahi amwaatan bal ahyaun bi rabbim yarsuquun bu leen jàpp ni ñoom dañ fee bàyyi ko mukk déedéet dañoo jógee ci bi appartement tuxu ci beneen appartement rek noonu ko Seydina Uwaysul Xarani waxee radiallahu taala anhu nitu yàlla boobu nag boo jógee dem di ko siyaare ji nga xam ni wóor na leen ni boo àndeek li ñuy tuddee alxalbu salim di teewlu màlla ci sa xol ci boo toogee ci seeni barab la nga ca mën a jëlee ci aw yiw la nga ci mën a jëlee ci ndabal leer la nga ci mën a jëlee ci taxe mënee su koo jëlee ci leneen lu dul loolu mu am ci ñoom ñoo xam ni nag waxtu woo jógee jëm ci ñoom maanaam ci wàlliw yi bala ñoo mën a faj ko sëñ tubaax ci masalikul jinaan bala ñoo mën a faj sa aajo da ngaa ci seen kanam am na ci wàlli wi ñoo xam ne ñoom bala ñoo mën a dindi sa njàqare rek da sukku ci seen kanam waaye am na ñoo xam nag ñoom boo nekkoon ba kii it saa boo leen wooyee ñu si la naa ko benn wàlli bu dëkkoon fii ci njaareem am borom bu doon siyaare si rawdatu si Ahmadou Bamba bi radiyallahu taala jaar njaareem di siyaare wàlli boobee bi mu noppee tàggu ko ni ko damaa bëgg a dem Touba siyaare ji rawdatu si Ahmadou Bamba mu ne ka ah, kon day baye boo nga xaar ba beneen yoon mbaa nga xaar ba mu ñëw ndax man day sëñ Tuubaa romb ne ma fii léegi jëm Poroxaan kon daañu gis ni nit yàlla yooyu boo demee fi seen barab li gën a bari ci suñ jamono nag xam nga évolution jamono ak li ñuy tuddee internet réseaux sociaux yi ak téléphones yi tax na nit ñi léegi siyaar jëraltu leen solu daal dañuy jël seen téléphone rek woote waaye loolu du siyaar siyaar moom dangay yor da ngay sol saw dàll di dox ba ñaq tooy xib wala ko ŋàbb addiye boo demee joxe hmm, loolu moo dem siyaar bu fekkee ni nit yàlla bi ngay siyaar nekku fi nekkul ci àddina bay ittewoo lu jëm ci mbirum àddina loo koy ëddi boo demee mooy la fa jàng ci alxuraan Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Rafaay radiyallahu taala anhu Cheikh boo demee ci rawdatu nit yàlla yi di leen siyaar mu ni boo demee da ngay jàng basmala jàng faatixatul kitaab boo noppee nga jàng suuratu Ixlaas onze fois mooy fukki yoon ak benn nee na wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah onze fois fukki yoon ak benn Cheikh Modou Rafa yi mooy wax mu ni boo noppee nga def euh, tawasul ci wàlli boobu ñaan sun borom faj sa aajo mu ni boo ko addiyaalee ba noppi nag nga def ci sun borom may wàlli boobu suñ borom dana faj say aajo mu loolu nga xam ni moom nga doon boo noppee nga def ko hadiyatu rasulillahi sallallahu ñaanal wàlli bi tëdd foofu ñaan suñ borom faj sa ajo suñ borom dana faj sa ajo loolu Cheikh Ahmadou Rafahi moo ko wax radiallahu taala anhu gis ngeen ci mañ ma unóoréy ni sëñ Tuubaa nee na booy dem di siyaare ji rawdatu nitu yàlla mu ni anam yi nga ko war a siyaaree soo ñëwee ba dugg ba nuyoo xam ngeen ne nuyoo bi sallallahu alayhi wa jàngale woon na ko ni ñuy nuyoo nit yàlla yi wala ku nekk ci rawdatum niñ koy nuyoo soo ñëwee ba nuyoo ba noppi da ngay waaxu dem ca penku rawdu bi nga xam ne moom ngay siyaare su ko defee diggante rawdu bi ak penku bi wan ganaaw penku jàkkaarloog ki ngay siyaare si ni ki nga xam ne boo ko fekkoon mu toog ni ngay jàkkaarloog moom kon da ngay wër dem ci kanamam jàkkaarloog moom boo jàkkaarloog moom jàng li ngay jàng ci alquran hëddiyaal ko ko ba noppi dal ni ñokkit jóg jaal di wëraat dem ca wetuk sowu jàkkaarloo ak penku yow doxale mu jooju ngay siyaare ak penku dal di jàng alquran wala salaatu ala nabi ñaan yàlla ci war may wàlliw bi tëdd foofu foofule suñ borom dana faj sa aajo tabaraka wa taala noonu la ko sëñ Tuubaa indee ci mm, téeréem bi muy tuddee Majmahun Nurayni radiyallahu taala anhu kon nag daañu gis ni siyaare ji nitu yàlla yi njariñ loolu la am ma waxoon nag ni sëñ Tuubaa moom ci dundam def na effort bu mu am ba dernière énergie am ngir bëgga a siyaare yonantu sallallahu alayhi wa sallam liir benn téere boo xam ni ci falasafa moo ko bind mu ne moom daal munta d'accord li ñuy tuddee al ardul muxaddas lim d'accord mooy al insaanul muxaddas ma ni ko ah kay ni nga xamee ne al insaanul muxaddas noonu la amee noonu la al ardul muxaddas amee makkatal mukarama mu moom lim gëm moom philosophe boobu nee na lim gëm mooy al insaanul muxaddas mooy ñëw ci suuf soo xam ni suuf soosu nekkul al ardu nag léegi makkatal mukarama ana ban insaan ban doomu aadama moo ko def alal moo des muy Ibrahima mu yonent fa jaar yëpp fa lañ ko fekk mu nekk al ardul muxaddas tuuri Sinaa bi suñ borom di wax Moussa alayhi salaatu wasalaam yaa Moussa faxlax naxlayka innaka bil waadil muxaddasi tuwa kan moo ko def al ardul muxaddas du benn doomu aadama bu fa tax yiir ko ba def ko al ardul muxaddas dëgg la nag al insaanul muqaddas mën na ñëw ci al ñëw soppi ko tax yër ko def ko al ardul muqaddas loolu moom kenn wérantu ko ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam muy jógee màkka ñëw madinatul munawara yasriba la tuddoon waaye mu dis ko ba mu sell mu tudde ko al madinatu al munawara kon ñaar yëpp am na al ardul muqaddas am na al insaanul muqaddas am na al ardul muqaddas mooy suuf soo xam ne boo waaxoo ba dëgg fa sa tànk yàlla mën na laa baal sa bàkkaar addina ak sa yuy yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ne al madinatu tanfi xabasaha kama tanfil kiiru xabasal adit yonentu sallallahu alayhi wa moo ko wax mu ne fu na a war a suuf su madinatu mën a war day far bàkkaar ni nga xamee ni noonu la safara di fare xumaa weñ gu ñuul buñ ko ci soyee yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kon am na ci pàkki suuf yoo xam ni boo waaxoo ba dëgg fa sa tànk suñ borom far sa bakkaar noonu la amee al insanul muqaddas yoo xam ne boo demee ba rencontre leen rek suñu borom baal la Seydina Imaamu Xasaali nee na radiyallahu taala nee na al akala ma al maxfoori xufira la euh, Seydina Imaamu Xasaali nee na boo bokkee ku yàlla jéggal ñu jéggal la al akalu ma al xufuri la ma al maxfoori xufira ku yàlla jéggal rek yàlla jéggal la loolu daañu danañu yóbbu ci li ñu tuddee tabaruk muy barkeelu àgg nañ ci jamono ñuy wàññi li nga xam ni nii yàlla dana njariñam nit ñi di ko suuf di ko biddaal di ko seexlu ba ñu bari defatuñ ko muy li ñu tuddee tabar barkeelu barkeelu mooy lan ko yaakaar ci moom yàlla mu naan ba desal nga barkeelu ca des wa mu lekk ba desal nga barkeelu ca des wa ah kay ak am njariñ datu lil mutabarikiina lañ wax kuy barkeelu rek mooy am barke nan nga mën a comprendre ni yow ku amee wiris bu laalee dara boo ko laalee mu walla la nga d'accord loolu ni ko amee virus lu laal boo ko laalee mu wàll la virus bi ba noppi d'accord ni nitu yàlla bi lu laal boo ko laalee du la wàll la nga xam ne moom la amee xel mënu ko nangu du losik man tiq mënu ko nangu ah kay boo koy laal mu lay wàll albarakatu kii na noonu nga xamee ni nit yàlla yooyu muy al insaanul muqaddas al insaanul kaamil jóg siyaare ji ko barke bi ci nekk ak bu la sàkkaloo njëggal ci yàlla tabaraka wa bu nu seetee daañu gis noonu ko yonent bi junje ci Seydina Xawaysul Xarani ne lum ñaan yàlla def ko boo ñaanalee sun borom defal la ñaan nga jëlee nañ ci Seydina Alin karamallahu wajha mu ni waxtu wa xamee ni sol nga saw dàll jóg di siyaare ji nitu yàlla wala koo xam ne dafa nekk ci tawat nga di ko siyaare ji nee na boo ne mën li génn sa kër rek sun borom day délégué juróom-ñaar fukki junni malayka ñu escorté la di la jéggalul yàlla di la jéggalul ba keroog ngay dellu sa kër nee na bu ñu demee du tax ñu bàyyi de dañuy continuer di la jéggalu ba suba sa nga génne woon sa kër dellu si waat ci waxtu wa. Seydina Alioune Karamallaahu wajhahu moo ko wax. yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne Abdullah ibnu Omar moo ko nettali Abdullah ibnu Omar xam ko radiyallahu taala anhuma ibnu Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana siyaara ji béréb bu ñuy wax xubaa xam ngeen ni xubaa mi ngi diggante màkk ak madina yonent sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee màkk ba ñëw di ñëw madina munawara bi mu tolloo béréb boobu ñu tuddee xubaa foofu la suñu borom farata farataale ajjuma jàkka def léeg-léeg mu daaba dem ca siyaara ji ko daana dox ak tànkam Ibn Abbas nee na ñaar yëpp la daan def nee na léeg-léeg day dox dem siyaara ji ko léeg-léegi mu war daaba mu ni ci beneen riwaaya muni ni bu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun a war a dem siyaara ji masjidi Quba samedi bu nekk bu demee julli fa ñaari rakka sidna Abdoulaye ibn Abbas euh, Abdoulaye ibn Omar bi mu gisee yonent bi def loolu bi yonent bi génnee àddina moom it mu continuer di ko def radiallahu taala anhuma moom it mu continuer di ko def kon daañu gis ni siyaar ci béréb yi nga xam ni béréb sell am na tuyaaba am na barke siyaare nitu yàlla bu sell am na tuyaaba am na barke lu ci nekk dalil yu bari yoo xam ne nii yii ci alquran la yii ci sunna mënees na ko ci indi léeg-léegi ñoom nit yàlla yi boo gisee ñuy jóg di siyaare ji yenn barab yi ñaar dañuy dem ngir tëbbu wala ngir dem tax yiir barab ba ci boppam ñaar yëpp mën na da ngay gis nit yàlla boo xam ni léeg mu bàyyi ko fi barab dem fi barab di ko siyaare benn mu siyaare ji ko ngir tëbbu moom nit yàlla bi wala mu siyaare ji ko ngir tax yiir barab bi ci boppam loolu it kat ulama suuf indi nañ ci ay tegtal yu bari gis nañ bi saayir bi waxee ni xaw xawmun isaa xallu bi man mansilatin xalla nada wa allat fi jawi anwaaru tastaquhum kullu ardi yansiluuna biha ka annahum bi baqayil ardi am taaru mu ne ah kay am na nit yàlla yoo xam ne béréb bu ñu wàcc def fa barke ni nga xamee ne lay bu nawet bi waaj a jeex lay boobu di ñoral dugub yi ak gerte yi noonu ñuy sotti ko ci kaw gàncax gi mu ne ñoom seen barke noonu la ba te bu ñuy dem fa lañ koy bàyyi duñ ko yóbbaale duñ ko yóbbaale loolu bayit boobu kenn ci mutasawifoon yi jëkk yi moo ko waxoon bi ko si Ahmadou Kabir Mbay gisee la ci yokkaat beneen bayit daan ni ne ahakay isa laqituhum aw kunta saairuhum bi ibni mu faaraxat ko daxar aw saaru mu ni ñooñu kay mooy ñi nga xam ni waxtu woo jógee di leen siyaare ngir yàlla mbaa nga dox ba dajeek ñoom ci kaw yoon ci seen barke ci la la yàlla di jéggal seen bàkkaar ak bu njëkk Cheikh Ahmadul Fadal Mbàkke radiyallaahu taala xam ngeen xamoon na alaaxa bi dox diggante maam Cheikh ak sëñ Touba taxoon na bu demee Louga balaa def dara day jaar kër maam jaare ko benn bis mu dem fa di siyaar maam Cheikh maam Cheikh wan ko ab yaat yële nga xam ne kenn ci mutasawwifoon yi jëkk yi al mutaqaddisuun al euh, mutaqaddimoona moo ko waxoon wan ko ñaari bayit diftal moom maam Cheikh sëñ Fall moom tamit daal di cay yokk ñaari bayit ni waaw kay ñi ngay wax xam naa leen ñu ne ko ñoñ nan la mu ne is bi siyaarati talxaa kullu makramatin wa yantafi bi liqaayal faqr wal xaaru mu ne ah siyaare gi nga leen di siyaare ci la la yàlla di toftale teraanga jox xam ne dootoo teqali ko moom ba keroog ngay dugg bàmmeel yëmu ca suñu borom dana dox sa diggante gàcc addina ak gu àllaaxira doo daje gàcc ko ci benn saa kon nit yàlla yooyu jóg siyaare ji leen am na njariñ daa ñu gis sëñ Tuubaa bi nga xamee nekk na gànnaar te mag ñi ne woon fii di def effort te gànnaar naqaree dem waaye ñuy def effort ba seen dernier sëñ Touba lu mu leen jural mooy sëñ Touba daal daal di def sadd ay bayit ci ñoom ni inna alladina ila sarsaara qad qasadi siyaarati faaruqu daarayni aw saara inna alladina ila sarsaara qad qasadu siyaarati faaruqu daarayni aw saara aw kama xaala radiallahu anhu ñi nga xam ne dañuy sol seenu dàll di yéeg ak a pelen par pelen montagne montagne ba ak si sarsaara di ma siyaare si ñooñu yàlla faxasal na leen seen bàkkaaru addina ak seen bakkaaru bàkkaaru alaxira inna lasina ila sarsaara xad xasa ziyaarati faaraxu daarin aw saara si Abdul Ahad Mbàkke mu dëgg mu wér ma nee na woon radiallahu anhu loolu day ba ko sëñ Tuubaa di wax bi mu nekkee gànnaar la waaye feneen fu nekk képp ku amuk dogu ak alxal bu salim ba nga xam ne ña ko doon fekki gànnaar moom lañ amee woon boo demee sëñ Tuubaa defal la lam defaloon ñooña nga amee ci ñooña amee woon kon nag siyaar ji nitu yàlla noon la mel kon bis boo xam ne bisu sañ Tuubaa la muy 18 safar jullit ñi dans le monde entier war nañu fexe def effort ci ku ko man sol saw dàll dem ba ca barab ba wala boo ko mënul nga ñëw ba ci suuf si nga xam ne fi la tëdd muy tuuba ànd ak eh, xol bu sell nag akuk teewlu nettali naa ko miraaran ci ay waxtaan Cheikh Ahmadul Badawi xam ngeen ko Égypte la nekk am na màggal guñ koy defal par année am na benn bis màggalam googu ñëw yëri leen deful mi na nii benn bis màggalam googu ñëw benn wàlli bu ñuy wax si Abdou Wahab Sahraani feebar bañu ñëw ci màggal ga bi yàlla dogalee mu feebar ñëwul ca màggal ga ba wàllu yi bàyyi ko ci gox yu bari di ñëw di siyaare si Cheikh Amadou Badawi nit ñaa ngi wër doom bi di ko siyaar waaye bu yàlla dogalee benn wàllu ñëw di siyaar rek wàllu boobu Cheikh Amadou Badawi yëkkati boppam diw mu ne ko labbay ko mu ne ko Cheikh Abdou Wahab ñëwul ci màggal gi ba tey mu ne ah déedéet man de moom si Ahmadul Badawi mu di ko def di ko def ba jant so ci guddi gi Cheikh Abdoul Wahab tëdd nelaw gént gis Cheikh Ahmadul Badawi mu ne ko yow Abdoul Wahab lan moo la tee ñëw ci sama màggal gi mu ne ko dama tawat mu ne ko yëkkati sa loxo ndeyjoor Cheikh Abdoul Wahab sax nee na ma daal di yëkkati sama loxo nii nee na bi ma yëkkatee sama loxo gis ñoo xam ni dañuy béréngu ñii di raam ñii di dat ngu ñii di dox ak seeni tànk ñii wari fas ñoom ñëpp ñu mal dëgmal màggaluk Cheikh Ahmadul Badawi Cheikh Abdou Wahab Sahraani nee na ba ma yeewoo laa tuubal sa ni li des ci sama dund gi dootuma tardeeti màggalu Cheikh Abdou Wahab euh, Cheikh Ahmadul Badawi maa ngi dund lu tax Cheikh Ahmadul Badawi jàjj Cheikh Abdou Wahab ci muy fekk si màggalam gi mooy lam cay jëlee ci aw yiw la ko yéene lam cay jëlee ci aw yiw moom la ko yéene moo tax mu di ko jàjj noonu le kon nag béréb yu mel noonu ku fay dem war nga am noo comporté woo war na am noo mel ngir nga mën a màng ci yiw fay bàyyi ko dem fi barab war faa jëlee njariñ far jëlee fa lor nag dara jëru ko kon nag nee ma waxtu wi jeex na loolu mooy li xajoon ci temps bi waaye daal ahamiyatu siyaaratu awliya illah wala bu la neex nga ne faidatu siyaaratu awliya illah wala anbiya wala ulama wala amilun njariñam mu nees koo xiyaas mooy siyaara ji nitu yàlla yi nga xam ne dañoo jëfe seen xam-xam wala siyaare ji nitu yàlla boo xam ne nii wàlliw la loolu njariñam am na addis boo xam ni ah, ñii dàq eh, dem di siyaare ji rawdu rawdu awliya ilaahi yi ñi ngi ko sukkandikoo ci addis boobu yonante bi di rëbbe yahud di naan yàlla na yàlla rëbb yahud di ndax ñoom daal seen jàkka yonant yi dañ leen a jàppe maanaam seen rawlutu yonant yi dañ leen a jàppe ay jàkka rawlutu yonant yi waaye dama genn wàlluk yonant nga xam ne ñoo ñëw ci yahudi sax genn wàllug yonent yooyu yëpp kenn xamul fu ñu ne kenn xamul seeni bàmmeel daanaka waxumaa nag di dem di jàppe seeni jàkk seeni bàmmeel ay jàkka ulamaaw tasawuf nag ñoom jàppe wu ñu bàmmeelu seen sëriñ yi ay jàkka dañ koo jàppe rawdatu boo xam ne gis nañ ni ardul muqaddas la al insaanul muqaddas tëdd fa ñu ñëw di ko siyaara ji ngir tabaruk waaye jàppe wuñ ko ay jàkka dañ koo def ngir tabaruk rek barkeelu nag bari na njariñ beneen bi ci des mooy xam ngeen ni borom eh, maqaamatul xariir daa waxoon ni njariñ al fadlu lil mutaqaddimina génération bu ba am lu baax génération bu njëkk ba donc am sëñ Tuubaa ni ko déedéet bul waxati loolu yàlla yi dimb ji mooy jotay ji ku ko taaj ndab te ndab la set mu tibb defal la ci wala tuxasis fadla qad ala bisi taqadumin faqat fataj ala bul jàpp mukk ni gaañu jëkk ñi dong ñu mën a am lu baax génération bu mujj bi mënuñu ko am mu ne loolu moom njuumte la bu ko waxati borom maqamatul xarir moo waxoon loolu al fadlu lil mutaqaddimin sëñ tubaa ni ko déedéet nag wala tuxasis fadla rabbi qad si taqadumin faqat fataj ala kon nag nee ma waxtu wi jeex na wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wajhu nabiyil muntaxal mujamali أحسن من كل منير مكمل وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمدنا المختار نور الناس مولده مسفسف الخناس نفى لخير مدور أنينا وخاد للقرآن والفنون نبينا أحمد خاتم إله ربي وربي له مع الإله يسر قتي يا رسول الله عليه تسليمات موسلاه سعادتي بنامها إن ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملكت خير الخلق خلوة سفات صدور قوم مؤمنين قد سفات ملكني دنيا وأخرى صمدوا ما عنده لقاره محمد يسر جند الله قتلي أبدا وابدا يسوف من لم يهبدا تسيم من خبل لي أهادي على الذي تسره أهادي هدمت باطلا بخط قد قبل وفر إبليس وأن ترك بال أمناه أحسن الورى المكمل لي خلدت حسنا من المكمل أمناه أحسن الورى المكمل لي خلدت حسنا من المكمل من سنني خير خديم المصطفى أخدمه بما استفاد من زنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما استفى أخدمه إلى دخول الجنة دار الخير والمنى والمنى من سن أنه بدائع به بالذي كخدمتي بدائع فخر الدلال والإلال ينخاد لي منه به الحلال مدد خمر الأداء بالولي مدى الونا كمثله كل ولي

مسلما